non xam nga boo nekkee euh, ministre xëy na yow da ngay am sa sa sa ambition euh, nga nga partagé ko ak ñi nga xamante ni ñoom nga ko war a partagé amoon na fi euh, porté woon nañu dossier bi ba président la république à l'époque mu joxe woon instruction pour benn ligne bu deux deux milliards pour pour tabax ay infrastructure de stockage ñun lëkkaloo woon nañ fii ak benn privé aussi boo xamante ne euh, mu ngi bëggoon implanter li mu soxla woon rek moom mooy benn euh, appui de la part de l'État loolu it porté nañ ko au niveau du chef de l'État ba mu joxe woon ci son aval mais malheureusement euh, mise en œuvre bi moo nekk moo lajj parce que boo nekkee ministre du commerce yow yoroo yoroo bu yoroo ressources yi da ngay dépendre ci euh, lu mel ni ministère des finances et naturellement euh, état malheureusement procédure am yi dañoo gudd gudd boo xamante ne euh, du doo mën a liggéey deux milliards wax de deux milliards et vous n'avez pas pu yow yow ci sa budget ministère du commerce sax xanaa boo defoon ay arbitrage nga nga nga génn fenn deux milliards. ministère du commerce foofu. mais mu ne malheureusement ministère du commerce amul amul les ressources li ñuy wax amul les moins de sa politique. ministère du commerce malheureusement ba léegi euh, defe na autorités yi sénégalaises yi comprendre guñu bu baax mission bi nga xamante ne ministère du commerce da ko war a jouer dañuy interpeller toujours ministère du commerce bu jafe-jafe amee alors que ministère du commerce am na liggéey gu yaatu boo xam ne mën na kaa def te mu ngi ko war a mën a def bu problème sax amul pour justement bañ beneen problème am donc malheureusement euh, loolu loolu mooy la réalité